jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm amaat mbégte ni ñu ko joxee woon euh, daje ni ki tey ji ndax umplewu leen ni nag fukki fan ak benn ci weeru mais atum 1973 fàttaliku tiis woo xamante ni xëy na àdduna amee na lum ci woon laale waaye nag buñ ko waxee ñu ci bëri seen xel dina am ci lu mu dem waaye nag bu ñu waxee Sénégal moom ci li ñu moom ak loo xamante ni jege nañu dinañu fàttaliku dem si yàlla Omar Blondin Diop. loolu mbokk yi tey umplewu leen ni euh, université Cheikh Anta foo xamante ni miin na ko jaar fa am na ci lenn loo xamante ni ndongo yi jot nañ ko ko defal mu doon loo xamante ni itam du guléet ndax yàgg nañu di gëstu ci moom waaye yàgg nañu tamit di témoigner ci moom di restaurer tey lenn loo xamante ni ay idée la yu mu amoon lenn loo xamante ni tamit ci mbindam muñ ko mënee wax ak yenn ci yoo xamante ni ay gëstu la. ndaw loo xamante ni mën nañu ni bàyyi nañ ko xel loolu ndax euh, duñ ni teel a sotti waaye teel a xam li nga xamante ni tey moom la réewam di xaar ci moom ak li nga xamante ni moom la bëgg waaye nag dogal bi moo doon mu nekkoon ci jamono yoo xamante ni ak ñi daal di nekkaloon tey loolu moom moo dox ba yenn yi nga xamante ni doxoon na di ay dog-dog ñu tee ko loolu nag ginnaaw bi bakkanam mujj ci daal di far waaye nag bakkan bi nga xamante ni jot na ko daal di ñàkk mu jur ci ginnaaw bi lëndëm lëndëm boo xamante ni gëstu googu ba tey njaboot gi ñu ngi ci dox di ci waslu àq ni ki tey jii nii la am juróom fukki at di cinquantenaire ci biir suuf ñu fàttali kon at yi eggul woon sax ci fanweer bi nga xamante ni moom la koy ñàkk loolu mbokk yi tey moom moo tax ñu fas yéene ko delloo njukkal waaye tamit bàyyiloo waat ci xel héritier boobu nga xamante ni tey Sénégal amoon na ko mu am lu mu donn woon ci mag ñi waaye tamit ndaw ñi war a am lu ñu daal di jàng ci moom mbokk yi loolu tey moom moo tax ñi ngi dellu di masawuwaat ñi nga xamante ni ñoo di njaboot gi delloot euh, di ñaax ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi gëstu ci moom ak ñi nga xam ñi ngi bàyyi xel ci moom wan leen ni leen kon euh, Omar Blondin Diop la fa fas yéene daal di waxtaane ñi ngi koy ñaanal it suñu borom defal ko tawféex fa mu nekkit suñu borom euh, yokk ak leeram ci moom delloo waat xolu muñ ci njaboot gi dinañu daal di dalal ki nga xamante ni mooy docteur Diallo Diop moom bu ko waxee ci wàllug médecine buñ ko waxee ci wàllu gëstu buñ ko waxee ci wàllu université ci wàllu jàngale ak yeneen yu ci bari yoo xamante ni mën naa ni xeltu yooyu ma nga ca nekkit koo xamante ni rakk la ci euh, ki nga xamante ni moom moo di Omar Blondin tey ñu fas yéene am pàcc boo xamante ni dinañ ko tijji waxtaanee ko ci réew mi ak moom noonu lañuy am def mbégte lool docteur dalal la ziar la bàyyi la nga nuyoog suñu téléspectateurs yi. jërëjëf jërëjëf ci invitation bi di la gërëm di la sant ci wax ju rafet bi nga waxtaan wi. Euh, ni nga ko waxee euh, Omar ma doon suñu taawu kër. ma euh, am beneen mag mi mu jiitu Omar nag taaw bu matoon taaw la nde dafa ñu gindi ci dundam bu gàtt boobu de xalal ñu aw yoon boo xam ne def nañu suñu kem kattan ngir sax ci yu jéem koo wéyal Euh, ci ay wareef nag yi nga xam ne moom la fi bàyyi euh, sas la sas bi mu ñu sas mooy yaakaar naa ne moo jiitu ci sas yi mooy jamono bi muy dëddu ak anam yi nga xam ne ci la ñàkkee bakkanam mm-hmm. euh, jar na leeral ndaxte daa indi woon ab werante mm-hmm. ñi ko tëjoon ne dafa xaru ñun ñi nga xam ne ñoo bokkoon kaso ak moom jàpp ne dañ ko boom mm-hmm. euh, suñu papa di ab docteur euh, li mu jot a xam ci ni yëf yi demee ci kaso gore tax na ci tàng-tàng bi li mu njëkk def mooy ñaan ñu autopsie Omar ci jamono yooyu 1973. ci tàng tàng bi la mhm. boobu robaguñ ko sax. Mhm. ba noppi mu teewee autopsie bi ndaxte. docteur la docteur la. waaw te bi euh, euh, professeur euh, Kenom bi nga xam ne moom la gouvernement bi tànnoon ngir mu def autopsie bi ba bind rapport am sama papa def li ñuy wooyee un contre rapport d' autopsie di weddi. lii professeur bi waxoon. maanaam dafa def benn contre expertise. mooy mooy expertise xam nga expertise bi mooy yow yaay def mhm. yëf yi mhm. mais comme moom fekkee na ko seede na ko mhm. lii waa ji jàppoon li mu tënkoon ci rapport am loolu la weddi mooy contre rapport d'autopsie ba noppi rax ci ab plainte dal di dem tribunal yàlla def mu tase fekk le premier juge d'instruction doyen de juge d'instruction juge Touré. dem si yàlla juge Touré Moustapha Touré. Mhm. Euh, bi bi ñuy bi doon le premier juge d'instruction sénégalais à être nommé ci tribunalu Dakar. Mhm. di daal di doon doyen des juges d'instruction moo euh, nangu plainte pa bi ba noppi bu mu toogee ab diir. mu daal di def li ñuy wooye les procédures d'instruction mmh. judiciaire maanaam euh, reconstitution des faits mmh. mooy ànd ak greffier am ànd ak kii sama papa mi nga xam ne moo doon plaindre ànd ak euh, procureur de la république ci jamono yooyee doon Basile Senghor mmh. dem si yàlla ko yàlla yërëm net ki nit ku baax la woon léegi bépp alkaati bépp garde pénitentiaire bi nga xam ne yaa nga fa woon ci jamono yooyee ñu woo ñu toog mm-hmm. yàlla def balaa muy dëddu juge Touré jot na tënk ci ab film mm-hmm. maanaam caméra image son li mu jàppoon ci digganteem ak yàlla hmm. te bi mu ko nangoo wax ci kanamu caméra mooy filmu jéy di diwo mu nangul ñu ko nangu ñu génnee ko ci film bi waaye yàlla def bés bi ñuy projeté avant première film bi ci hmm. Sorano hmm. ci ñetti fan yi jiitu la nelaw su dul woon loolu naroon na fekkee. Mhm, projection bi bi mais jotoon na gis film bi ci mail. Mhm. maanaam dañ ko yónnee woon lien bi mhm. link bi. te li mu ci wax digganteem ak yàlla ñun si suñu gis-gis bu gàtt ab tegtal la ab firnde la. ñu su bëgg ci sukkandiku nag tey ci juróom fukkeelu at. bi Omar nelawee ngir. ñu yeesalaat dossier bi sulliwaat ko ndaxte dañu ko suuloon mm-hmm. naka lañ ko suulee mooy di ne euh, bi mu defee liggéeyam ba daaneel wax na ko ci film bi dafa jàpp ne reconstitution bi li mu firndeel mooy di ne Omar ci moom kenn ci néegam mm-hmm. ci cellule mm-hmm. ci Gorée ak euh, darabam mhm. darabu lalam mhm. amul woonu kàttanu euh, euh, rey boppam mhm. ci tuyauterie wu néeg ba cellule ba mm. ndaxte dafa indi benn beneen détenu boo xam ne boroom kattan la woon mm. doole la ëpp mm. doole Omar fuuf pour que mu jéem a lonk baatam ci darab ji mm-hmm. ak darab ji mm-hmm. ci tuyauterie bi mm-hmm. jéem ne ñaaj ñetti yoon mooy la ñetti yoon nee na ci la jàpp ne kon Omar ak néew doole bi mu néewoon a doole ci ay grève de la fin ak yu ma demee noonu mhm. liñ ko jiiñ ginnaaw bi mu ne la waaye mënte am mënte nekk mhm. mënul woon a sotti voilà boobu témoignage nag bi mu bàyyi mhm. ñun dañu jàpp ne loolu lu bees la ci procédure parce que beneen juge jotul saytu dossier boobu d'accord plainte ou pas bi d'accord kon euh, li ñu mën a jàpp mooy ci jamono yooyu. 73 mhm. ba ci euh, régime yi fi jaar ginnaaw Senghor. Mhm. ginnaaw bett euh, Abdou Diouf jaar na fi c'est mhm. l'héritier de Senghor. absolument mais ginnaaw bett Abdoulaye Wade jaar na fi. ci régime pourquoi tey. après yaa ngi dégg les indépendances un président qui est né en 62. tey ngeen ni di ngeen dugal lu jëm ci wàllu dossier boobu yeesal ko pour am espoiru tey li nga xamante ni seen waajuru góor njottoon na ko ni doomam faatul boppam waaye am na lu nekk ci ginnaaw ginnaaw bet ñu bëggoon na euh, réalisatrice bi may ma photo bi nga xamante ni mi ngi ko doon wane sànq ci Omar ndax misaal bi moom mooy lii ñi gën a gën gën a miin mooy benn nataal bi mm. naataal bi ba xam man nga ñu wax at man la ak fan la woon lii fii la woon ci Ndakaaru Ndakaaru la woon waaw waaw waaw ci benn xaritu Omar bi ñuy wax Bouba Diallo mm-hmm. moo ñëwoon kër ga waaw fekk Omar di jàng téere boobu mm-hmm. Euh, yore cigarette mhm. moom moo defar boobu nataal. d'accord te moom moo gën a siiw. Mhm. ci nataalu Omar yi. c'est vrai moom moo law ci àdduna si yëpp. d'accord alors donc question bi ma posé jëm ci jamono yooyu ak euh, président Senghor moo nekkoon na fii ginnaaw bi Abdou Diouf jaar na fii président Wade jaar na fii ak président Macky Sall tey ñëw. Euh, ba xam espoir bi ngeen di nourrir ak lan moom moo waral enclenché wu leen woon loolu tey li suulu woon ngeen bëgg ko réveillé waat. dëgg euh, wax ci am na solo laaj bi am na solo euh, benn bi ñu demee ci yoon ngir attekat yi atte ñu diggante li gouvernement bi wax ne daa ak li ñu wax ne ma dañ ko boom sama papa ci boppam ci tàng-tàng bi moom la def mhm. dafa porter plainte mhm. dégg nga mhm. léegi àttekat bi nga xam ne moo yore woon loolu premier juge d'instruction sénégalais bi mu liggéeyee ba daaneel dafa dal di inculper bépp garde pénitentiaire bépp alkaati boo xam ne ci kasowu gore ci bés ba bi mu gisee ne dóor nañ fa Omar ba mu xëm dafa leen daal di woo. inculper leen. ba mu des benn kenn moo manqué woon te sama rakk bi bokkoon kasoog Omar ne ko Omar ne ko kooku moo ko dóor liif. Mhm. fii ci do ba mu daanu xëm. kooku rek moo teewul woon. bi juge bi laajtee lu waral loolu ñàkk teew ñu ne ko non dafa dem vacances. Mhm. wóoratu ne nag Espagne la demoon wala Côte d'Ivoire waaye daal nekkul woon ci biir réew mi. Mhm. muy xaar ba ko kañ lay dellu si ñu wax ko mu ne day xaar ba dellu si. Mhm. mu dellusi pour mën ko boole ak ñeneen alkaati yi. Mhm. léegi balaa muy jot a yeggal boobu yéene ñu yëkkati ko affecté ko. daldi di dénk dossier bi beneen attekat bi ko wutu woon. muy le juge Elias Dossé bi nga xam ne euh, africain la waaye africain bi nga xam ne waa Dahomey la woon ñu koy woowee beneen léegi bi nga xam ne tamit amoon na nationalité française mais mu ngi doon jéem a wut tamit nationalité sénégalaise il était en voie de naturalisation mhm. te boobu attikat deful dara ci dossier bi bu mu toogee ba di xaar di yopp ak genn wàll. Mhm. balaa muy wëlbatiku daldi jël li ñuy wooyee ordonnance d'incompétence maanaam. Mhm. dafa jàpp ne euh, dëggam dañoo ne Omar dañ ko dóor ba mu mujjee ci ñàkk bakkanam. Mhm. moom nee dóor yi ñu ko dóor amul benn certificat médical. bu docteur Xaatim bi firndeel ne. Euh, incapacité li juge yi te àttekatu tubaab yi di wooyee incapacité totale temporaire bu ëpp ñetti ay bés. ñaar mm. fukki fan ak benn. Mm-hmm. nee na ndegam loolu amul moom tribunalam sañu la saytu boobu dossier. Mm. parce que amul firnde amul kayitu docteur buy firndeel ne du affaire simple police. Mm-hmm. maanaam juge de paix. Mm-hmm. affaire correctionnelle la. maanaam tribunal. correctionnel. d'accord noonu la def. d'accord mu daal di mu daal ne donc il est incompétent pour ça. Mmh. et bi daa war a jëlaat dossier dem yóbbu ko ci tribunal départemental le juge de paix. Mhm. bi yore affaire u sëy ak tàggoo ak yooyu ak yu demee noonu. Mhm. d'accord donc loolu. dafa toog at ak genn wàll balaa mu koy génne balaa mu génne boobu ordonnance d'incompétence. Mhm. ci jamono yooyu. oui c'est-à-dire en soixante quinze. Ah, waaw un an et après. Mmh, alors entre régime yi nga xamante ni succédé nañu ba léegi ni mm-hmm. espoir bi door am. c'est-à-dire ñun bi xam nga Abdou Diouf Senghor a ko fi teg. oui mais Abdoulaye Wade parti bi mu njëkk a bokk fii ci réew mi moo doon UPS. te ñu bari jiiñ nañ ko ne. PDS bi mu mujjee samp en 1974. Mhm. daf baara yégoo la woon digganteem ak Senghor. mooy la fameuse rencontre de Mogadiscio. Mhm. bi fii jaay ne Senghor bi mu Senghor bi ko Senghor ne dinaa la mën a nangul nga am parti. mu doon le premier parti d'opposition mais du doon parti d'opposition faw mu doon parti de contribution. Mhm. soo ko defee dinaa la sédd ay cër. ci assemblée nationale boobu euh, jamono assemblée nationale juróom-ñett fukki député la woon. Mm-hmm. mu ne ko ñeenteeli xaaj bi laa lay sédd maanaam jox la ñaar fukki député. d'accord donc wóoluñu woon Abdoulaye Wade. Mm-hmm. ci jamono yooyee. mais bi Macky yegsee nag. Mm-hmm. muy deuxième alternance ñu ne moom. Euh, il est né après l'indépendance. donc jamono nooteelu tubaab yi fekkeewu ko. donc moom euh, euh, mun na mun na nangu de euh, dossier boobu ñu sottal ko ñu leeral ko mhm. ndaxte ci jamonow Senghor la woon mhm. ci la ñu def suñu anniversaire d'accord quarantième anniversaire fukki at ci gannaaw mhm. voilà bi ñu ko defee nag yàlla def alkaati boobu bu teewewul woon bi ko juge Touré woowee bi ñu defee suñu cérémonie d'hommage université ci amphithéâtre UCAD 2 ba ëllëg sa ci loolu ajjuma la woon ci samedi bi euh, euh, journaux yi euh, siiwal ko ci journaux ci quotidien wu ëllëg sa la neere fay génn hmm. ne moom de bi bi di yegg si gore par chaloupe spéciale pour ñu won ko néewu doomam dafa sëgg ci Omar ne Omar pour lan nga def li nga def hmm. maanaam paa bi dafa nangu woon ne Omar dafa xaru hmm. or paa bi xam nga euh, bi Omar di gaañu euh, àllarba la woon hmm. bi ñuy def procédure autopsie ak yooyu ba mu doon sotti euh, boobu ñu ngi woon samedi altine la paa bi dem tribunal déposé plainte mooy ci diggante bi gis na leneen loo xamante ni bokkut ak li mu foogoon. ci njëlbeen ci ci tàng tàng bi lañu xamoon naka la yëf yi demee ndaxte Omar dafa bokkoon kaso ak sama rakk. Mm-hmm. Mohamed. Mm-hmm. mi topp ci man. Mm-hmm. kooku moo nettali li ko Omar waxoon moo jottali li ko Omar nettali woon. mooy dóor bi ñu ko dóor dóor bi ñu ko dóor te ñoom bokkoon cellule parce kaso ñaari anam la ñaari bërëb la mhm. mooy néeg yi ngeen di nekk mhm. normal mhm. waaye soo leen fa defee ay jéeya dañ leen di yóbbu cellule mooy quartier disciplinaire te quartier disciplinaire bi film bi wane na nu mu mel c'est vrai te Pape Ndiaye ak Omar ñoo fa nekkandoon d'accord voilà alors donc on va essayer de découvrir Omar avec euh, un ancien compagnon un ami qui nous vient du Mali, exclusivement donc pour euh, donner son témoignage par rapport à feu Omar Blondé Diop. Il s'agit de Hamidou Magassa. Oui. Hamidou, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Très très bien. Alors donc le voyage n'était pas trop pénible non. ou bien vous n'êtes pas fatigué Bon, ça va, c'est un voyage de nuit par vol, mm -hmm. Air Sénégal, mm -hmm. et qui s'est bien passé. D'accord. Je suis là depuis le dimanche, lundi, lundi. Mm -hmm. lundi vers 3 heures du matin on est arrivé. D'accord, on parle wolof, Omar que vous connaissiez? Bon, je malheureusement, je parle pas wolof, j'ai quelques mots nanga def. Oui. <laughs> Maa ngi fii. <laughs> Alors, parle-nous de Omar, votre ami. Bon, Omar c'est une découverte à un âge Omar, j'ai plus âgé que moi de deux ans. OK. Donc on considère chez les Bambara que ça ça fait partie de la même classe d'âge. Mhm. Euh, moi, ma rencontre, c'est vraiment, euh, je peux dire, euh, la rencontre de ma vie. vraiment un peu fort comme mot, euh, mois, un Parce que je venais de l'université de Dakar, où j'étais étudiant pendant 69, après le post-68, quoi. Et j'ai eu quelques mésaventures avec euh, le premier président, c'est <laughs> Comme quoi parce que j'étais responsable étudiant, parce que je militais. Mm -hmm. Et à l'époque, l'université de Dakar bouillait d'idées mm -hmm. avec l'union des étudiants de Dakar. Mm -hmm. Et c'était des Maliens même qui géraient cela. Vous avez vu beaucoup de présidents qui sont sortis de ça. Oui. Moi, Ablaï Bachili, on a fait un peu la Rebus, la prison de Rebus ah. ensemble. Ah. et <laughs> des gens comme Landing euh, Savané oui. euh, les Delacroix Decroix euh, Decroix <laughs> voilà le ah chef bon? du parti tout ça quoi okay. donc c'était vraiment un lieu je venais de Bamako je mm -hmm. suis né à Ségou vraiment intérieur je ne connaissais pas le monde mm -hmm. et Dakar a été je ne sais pas si à cause de la mer oui, mais ouais. ça a été une ouverture <laughs> moi je suis né au bord du fleuve okay. c'était extraordinaire mm -hmm. et ces années-là et l'université Euh, à l'époque euh, qui est une annexe de l'université de Bordeaux, vous savez. Mmh. Et donc, en réalité, c'était les Touables qui étaient là. Mmh. Alors, euh, on s'est battu pour l'africanisation. Parce mmh. que nous, aux Maliens, on ne comprenait pas <laughs> qu'on vient d'étudier au Sénégal. Yeah, et, et qu'on vient d'étudier au Sénégal et qu'on soit, en tout cas, formé par des Français. Ça, on, ça c'est un côté malien. Mhm. Donc, on a fait beaucoup de bagarres. Même à Blaouad, j'étais dans la classe de Blaouad, on s'est battu. pour que vraiment ils, ils viennent enfin devant. Mmh. Parce que c'était tenu par des toubabs uniquement. Le cadre était excellent, mhm. honnêtement. Et c'est tout à fait le produit des années de colonisation. Mhm. Parce que Dakar, c'est notre capitale à notre Dakar n'appartient pas au Sénégal. Dakar appartient à toute l'Afrique de l'Ouest. On oublie. Mhm. On a tous investi ici, nos aînés, nos parents, pour que Dakar soit. Et on était un ensemble, l'Afrique de l'Ouest. mais pour leurs intérêts, ils nous ont séparés encore pour dire toi tu es ceci, toi cela. Oui. Sur le Dakar, c'était vraiment le point de rencontre de toute l'Afrique de l'Ouest. Mmh. Donc, et l'université, c'est la seule université hein, vraiment où en tout cas l'élite de toutes ces régions venait. C'est comme ça que moi, après le bac, je me suis trouvé là pour des études de droit d'ailleurs je devais être un juriste mais ah. finalement j'ai pris le contre-pied des juristes okay. je suis plutôt dans les sciences humaines ah, les sciences sociales avec euh, Pierre Fougeras avec des philosophes mhm. avec des Samir donc vraiment le contraire un peu du droit mhm. et euh, à un certain moment de nos activités militantes le président Senghor a estimé qu'il euh, y a un certain nombre d'étudiants mhm. euh, parmi lesquels moi-même euh, qui devrait être expulsé. Ah bon? Il a pris un avion spécial. Euh, il y avait à l'époque. Vous étiez expulsé? Ouais, c'est ce que je vous raconte. Ouais, ouais. Faut que je dise le Dakar là comme ça. Là, il a décidé d'expulser mmh. un certain nombre d'étudiants de la sous-région. Euh, dont d'ailleurs c'était des Maliens et des Voltaïques à l'époque. Okay. Ce qu'on appelle maintenant les Burkinabés. Ça s'est passé au mois de mai, mmh. exactement le même mois de mai dans lequel nous sommes. Nous sommes okay. Et dans un avion spécial. Bon, moi, je suis, j'étais sur la liste, bien sûr, puisque j'avais fait un peu rebus, mmh. <laughs> où j'ai appris à jouer à la dame. <laughs> C'était pas grave avec Ablaï Batili, la même période d'ailleurs. Donc, je me suis retrouvé à Bamako, euh, vraiment avec. Euh, euh, cet héritage intellectuel, ce point intellectuel de Dakar. Mm -hmm. Dakar m'a poursuivi. Okay. Dakar va poursuivi et un ami, le cousin même de Omar, euh, Nyangus, oui. euh, et que je fréquentais assidûment à, à Dakar, mm -hmm. j'ai été dans sa famille. Vous savez, euh, les familles se retrouvent tous là. Mm -hmm. Et là, j'ai découvert Omar. OK. Et lui venait d'un voyage, je crois, euh, d'Algérie ou etc. Mm -hmm. J'ai découvert un homme où j'étais dans mes épreuves de jeunesse comme lui, mhm. où on cherchait tous notre voie. et euh, j'étais extrêmement impressionné par euh, euh, le, le, sens de la répartie qu'il avait, okay. sa réactivité, mm -hmm. et puis son ouverture, sa générosité. Mm -hmm. C'était un autre parcours intellectuel oui. que je découvrais chez un, un frère. Mm -hmm. Il était avec un autre euh, ami avec lui qui s'appelle Aliunsal, qu'on appelle Paloma. Mhm. Et, et, à Bamako, on a été torturé. Là-bas Oui, parce que les militaires c'était la, la période pure et dure mm -hmm. du régime militaire au Mali. Oui. Avec Tchekoro, c'était le comité militaire de libération nationale, mm -hmm. ceux qui ont fait le coup d'État contre euh, Moribo Keïta. Mm -hmm. Donc vraiment, on était les premiers à avoir manifesté. Donc ils nous ont mis dans une prison militaire très très très sévère où tous les matins on nous, on nous torturait. C'était c'était quoi le motif Vous qui venez d'être Le motif c'est qu'ils n'estimaient pas que on... c'était les motifs en chef d'État. Oui. second nous renvoie. C'est la punition qui continue toujours. C'est la punition qui. Voilà, tu as très, vous avez très bien compris. OK. Non seulement la, la répression à Dakar nous a eu, oui. mais ça continuait avec moi. Mm -hmm. Et moi, j'étais dans une fonction de, de, de leader étudiant, mm -hmm. euh, responsable de bureau. Donc, j'étais en face du directeur des services de sécurité, quelqu'un qui était extrêmement sévère et qui avait juré d'avoir notre peau. Mmh. Et on était une trentaine à peu près avec quelques femmes. les études, les femmes, il les a mis de côté, mais les hommes, on les a mis dans, en prison militaire. Mm -hmm. Et tous les matins, on nous faisait sortir, on nous battait, et on nous faisait des épreuves, jusqu'à ce qu'un de nos camarades, euh, qui a été sacrifié. Parce que l'Afrique, vous savez, on vit des sacrifices. Le problème des Africains, oui. on sacrifie les poulets, on sacrifie les hommes. Mm -hmm. Alors lui, il est aussi est décédé euh, suite à un affaiblissement cardiaque. Cheikh Omar Tangara paie à son âme. Okay. Donc finalement, on est sorti. Mhm. c'est ça qui nous a au bout de dix jours on est sorti de prison militaire. ok et là je vais chez toujours euh, mon ami de Dakar là. Niambus, mhm. et je découvre Omar. oui vraiment comme. Euh, je sais pas moi une rencontre que Dieu seul sait mm -hmm. pourquoi il l'a fait mm -hmm. et vraiment on on a vraiment des atomes très crochus tout de suite alors la dimension de l'homme lorsque vous l'avez rencontré vous avez discu discuté on, vos on premiers discutait échanges. tout le temps c'était oui. devenu un lieu de

pour nous qui venons de, du Mali, le Mali et de Dakar, c'était une découverte à travers ses euh, écrits, à travers également les, les, les enseignements qu'il nous donnait, les échanges à travers, euh, à l'époque aussi, le monde bougeait beaucoup. Oui. Il y avait les Tupamaros, l'Amérique latine, les Black Panthers. C'était ce qu'on cherche en tant qu'étudiant, c'est vraiment ce genre d'information, ce genre de, de contact où on vous ouvre l'esprit sur le monde entier. D'accord. Donc vraiment, lui portait ça. Mhm. Il avait vécu. Mm Il le portait très bien. Mhm. et, ironie du sort, la personne, le directeur de service de sécurité, s'est retrouvé également avec nous dans la même famille. Mhm. Non seulement il nous avait tapé dessus, mais il accompagnait un de ses collègues pour bon, euh, pour des raisons privées, intimes qu'il avait là-bas. Donc ça, euh, là aussi, j'ai observé Omar, euh, sa manière vraiment de réagir mais très vivement à une autorité. C'était quelqu'un qui avait le pouvoir. Mmh. Alors, il y, avait, il y, avait, des échanges très vifs avec, avec cette personne. Il résistait. Hein? Il résistait. Il résistait, il n'était pas d'accord avec lui, il montrait ces, ces, choses. Eux étaient venus un peu pour euh, euh se, se, faire séduisant, mm -hmm. et lui, il casse les séductions. Mm -hmm. il <laughs> casse carrément. Mm -hmm. Il les casse totalement. Alors là, ça, nous on, on assistait. Mm-hmm. Alors que nous, on, venait de ses mains oui. il a tapé. Mm -hmm. Donc vraiment tout ça, c'est euh, ça vous donne une idée d'un homme euh, qui portait des idées, qui avait une pensée et qui ne s'arrêtait pas par rapport à qui que ce soit. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on est jeune, on est impressionné par ça. Mm-hmm. Alors moi, la particularité de ma relation avec Omar, c'est que quelque part aussi j'aime ce côté bagarreur je suis très bagarreur <laughs> aussi. Euh... mais vous n'avez plus la force. Hein? non non la, la force c'est la tête c'est pas l'âge moi ouais. je me bagarre jusqu'à la tombe là. Mm -hmm. <laughs> je, je n'arrête pas là. parce qu'il y a les idées tout il y a les idées là oui. c'est ça la bagarre la bagarre c'est l'intelligence mm -hmm. c'est pas la force physique. effectivement c'est pas l'armement tu vois mm -hmm. les mhm. Américains ils se ils battent tout le temps par tout le monde. ils mhm. ont tous les moyens. Mhm. <laughs> donc c'est pas donc c'est vraiment les idées et nous on est producteurs d'idées de remise. On peut se tromper. On se trompe d'ailleurs et on est d'accord avec euh, cela, mais nous sommes prêts à changer. Nous sommes prêts à admettre que vraiment on n'est on est pas la solution du tout, mais ce qui se présente comme étant la solution, on dit non, arrête cette réalité. Voilà. Et ça, on a gardé ça de Omar. Et oui. moi, c'était ça. Mmh. Voilà. Ah. Donc, personnellement, si je dis quelque chose, ça a été euh, la rencontre qui m'a permis d'avoir une, euh, une renaissance intellectuelle. Mmh, la rencontre avec qui, Omar. Comment Parce que c'est lui qui m'a proposé d'aller à Paris. Ok. Je vous assure, je ne savais rien de la France. Je suis né à Ségou, je connaissais Bamako, je connaissais Dakar. Dakar. Et il a eu la générosité de me faire une lettre à son jeune frère Kadé, l'aîné de, celui-là, qui s'appelle Ousmane, mhm. et de dire il faut aller en France. Et il m'a dessiné un itinéraire extraordinaire, mhm. mon plan de vol. À l'époque, c'est facile d'aller en France. On, a, comme si on va à Koloban, là. <laughs> Tout près. Et il m'a dessiné mon plan de vol mhm. et également mon itinéraire au sol. pour aller trouver un ami sénégalais encore que j'avais mhm. connu à l'université de Dakar mais qui était allé à Paris et qui m'a mhm. qui, a été mon jatigi. Ah. Et vous savez c'est d'où Ça ah, fondamental. L'homme c'est son jatigi, on mhm. n'existe pas parce que c'est lui qui a porte votre image, c'est lui qui porte votre doc qui est un ami malheureusement qui va décéder à Bamako Abdou Salam Khan et à son nom Billy. Donc vraiment tout ce que Omar a dessiné ça a

comme les indépendances là. Oui. Quand les Touaregs sont partis là, mm -hmm. <laughs> les gens de Rebeu sont remontés au plateau là. Mm-hmm. <laughs> Donc c'est tout ce qui sont lieu l'événement. Oui. Et à ce moment, il y avait un bouillonnement d'esprit extraordinaire. La France était vraiment le point de rencontre tiers-mondiste, mm -hmm. où tout le monde bougeait, tout, tout le monde allait à Paris, et, etc. Donc vraiment, et ça, ça, ça m'a construit. D'accord. Et c'est pour ça je dis que dans ma vie, j'ai mes parents géniteurs qui m'ont amené au monde. Je remercie Dieu mhm. de m'avoir donné cette rencontre. Et ce n'est pas une rencontre euh, séparation, mhm. parce que c'est une rencontre qui a quelque part conforté mon caractère. Mhm. Mon caractère de ne pas être vraiment, euh, je sais pas, mangé par tout le monde, parce qu'on est des pays de sorciers là. <laughs> Donc de toute manière, c'est une rencontre que je porte. D'accord. Euh, et chaque fois que j'ai l'occasion d'être présent et laissé, mmh. particulièrement avec notre petit frère aussi, mmh. ça c'est notre deuxième petit frère <laughs> qui est en face de moi, et on a gardé des liens. D'accord. Ah. Vous vous souvenez de, sa, de votre dernière rencontre avant l'annonce même de son décès, et comment est-ce que vous avez appris son décès Voilà. Ça, c'est une très bonne question parce qu'en réalité, quand il m'a mis en route, oui. moi je suis arrivé à Paris. Oui. Et c'est fait le même mois. euh, novembre 71 euh, par là hein. Et moi je, quand j'ai pris mon avion tout de suite j'ai appris que euh, l'événement était arrivé. Si peut-être j'étais à Bamako. Vous l'avez appris dans l'avion? Non, j'ai pas l'appris dans l'avion, je l'ai appris à Paris quelque temps après, j'ai appris que en tout cas, on les avait arrêtés. En fait, la personne qui allait dans la maison qui était le patron de, de du Mali en réalité. Mmh. C'était lui qui avait l'État en main. Et, euh, avait passé à l'acte. Oui. Pourquoi? Parce que Senghor devait faire une visite officielle mm-hmm. au Mali. Et généralement, quand les chefs d'État se déplacent, euh, il y a des services de renseignement pour oui. voir oui. Euh, leurs opposants ou des gens qui ont des idées contre eux. C'est, c'est, alors, on a pensé que... Euh, et c'est comme ça que je l'ai appris. Et quand je l'ai appris, je vous assure, c'est comme si quelque part moi-même j'étais je me suis dit mais si je ne quittais pas en ce moment parce que j'étais toujours dans la maison peut-être j'aurais été arrêté peut-être ça aurait on aurait joué sur nos parents parce que j'étais quand même euh, dans l'élite où mes parents avaient des positions institutionnelles importantes peut-être qu'on aurait trouvé un arrangement euh, très vite quoi mmh. mais bon Dieu fait les choses comme il veut et donc quand je l'ai appris je, euh, je, je ne suis pas resté inactif mmh. avec cette information. Oui. Et toujours Dieu, je reviens à Dieu. J'ai fait des petits boulots d'étudiant parce que moi, j'ai fait toutes mes études en France sans bourse. La France m'a coupé la bourse, mes mm. parents aussi n'étaient pas d'accord que j'aille. Mm. Donc, je faisais des petits boulots. Et dans ce, ce genre d'activité, je me suis trouvé une fois euh, chargé euh, d'un assistant de recherche d'un grand sociologue euh, français, mm -hmm. Pierre Bourdieu, et l'établissement de, de Omar. Mmh. Parce que Omar a fait philo, et il a, après lui, le grand, c'est un des premiers Sénégalais à être un normalien supérieur. Pas dans n'importe quelle discipline. Uh-huh. Parce que la filo c'est la discipline mère. Mmh. C'est pour ça que les Américains appellent leur docteur PhD, philosophie dissertation. Même si tu étudies les étoiles, <laughs> c'est la philosophie. Oui. <laughs> si tu étudies la médecine, c'est la philosophie. philosophie. Donc Omar était vraiment dans, dans, ses, dans ses marques. Mmh. Parce que euh, je sais qu'on a des discussions philosophiques. Il travaillait sur Spinoza, euh, un philosophe euh, juif du XVIIe siècle. Vraiment, il avait une culture occidentale extrêmement poussée. D'accord. Vraiment, quoi. D'accord. Donc voilà, voilà ce qui marque mhm. euh, un jeune qui en, en quête de savoir quand on étudiant. Voilà. Et lui était déjà en position de porter un savoir, pas simplement de le porter, d'avoir vécu un savoir. D'accord, comme disent les philosophes, enquête de savoir. Mmh. <laughs> Alors, Amidou Magassa, qui nous vient de, du Mali, hmm. euh, dégg nga li mu jot a wax ci euh, sa frère. Hmm. li mu jot a wax ci Omar mu doon loo xamante ni il l'ont vécu loin de vous. Euh, lan ngeen ci mën a jàngat ak lan ngeen mën a waxaat ci Omar. lenn rek laa ci mën a yokk. ne mooy di ne Omar ni mu meloon. ak ñun. Mhm. la meloon ak ñëpp. jikkoom la woon daal. Mhm. xam nga kenn mënul nëbb sa jikko. day yàgg rek waaye day feeñ. Omar dafa ubbeeku woon. Mhm. tabe yaatu te. yéene ñëpp li mu yéene woon boppam. Mm-hmm. noonu la ko yàlla bindoon te it euh, euh, comme philosophie la doon jàng xam nga naka la Cheikh Anta daan euh, làppatoo philosophie. jubbantikatu xel. Mm-hmm. noonu la doon wooyee philosophie. loolu mm-hmm. noonu la doon tooñee Ablaye Kane. Mm-hmm. ci sa réunion parti bi ndaxte moom était professeur de philosophie à l'université mu ne yéenay jubbantikatu xel yi. Mm-hmm. Euh, donc li mu ubbeeku woon moo taxoon mu mën a tolloog ku ne. ndaxte euh, euh, ni mu def mënoon na yemale boppam ak ñëpp. Euh, ngir weccante xalaat euh, su dee da lay jàngal mu jàngal li mu xam su dee mën na jàng si yow mu tibb si yow li mu soxla. Mm-hmm. dégg nga ngeen di weccante xalaat euh, te it bari li muy jàng fu mu toll mu ngi ak téere daal. Mm-hmm. d'accord tey buñ ko xoolee ci jàngat nga ni dekkalaat ngeen lu jëm ci dossier bi. ndax du alal du dara moo tax ngeen topp ci. am na loo leen bëgg a jàngale ak loo leen bëgg tey jii nii loolu fi réew mi toll ak fi àdduna toll nit ñi xam ko ci héritier yu nga xamante ni demee na ni Omar Blondin Diop ndax ñu ci bëri fàttaliku 11 mai bi nga xamante ni moom la am ci moom étudiants yi am loo xamante ni dañ koy jàng di delluwaat ci moom mais bu ñu contextualiser li nga xamante ni tey moom mooy mission bi mu doon joué ak fii réew mi toll tey ndaw ñi lan la ñu mën a jàngat ci moom. ak tey yéen lii nga xamante ni dekkalaat ngeen ko ci lan ngeen moom mooy euh, mujjantal gi ngeen ciy sànq. laaj bi am na solo euh, dañoo jàpp ne. Mm-hmm. li taxoon Omar di xeex ci jamonoy Senghor. Mm-hmm. soo ko méngalee ak ni réew mi demee tey kenn mënul weddi ne tey la wàlloo gën a aayati. Mm-hmm. waaw waaw lépp li doon jàmbat ci jamono Omar. nooteelu tubaab yi waaw euh, yàq réew mi yi nga xam ne ñi fi toogal tubaab yi fa tubaab yi teg euh, euh, jéggi na dayo tey la gën a métteeti mën nga ko seede ci naka la tubaab yi aakimoo alalu réew mi ba ci jëndante ak jaayante bi mm-hmm. nañ ko seede ci lii xew barki démb ngor barki bi biig ak barki biig ab suuf bu ñuy xëccoo nguur gi teg ci loxoom nangu ko ci municipalité wu Yoff def ko propriété d'État ba noppi ah, fekk waa réew mi waa gox gi waa dëkk ba ah, village traditionnel wu yoof euh, Ngor Ngor pardon dañu buggoona euh, tabax taxawal fa ab lycée parce que xale yi jàng euh, Ngor ci village Lébu yëpp faw ñu dem ba Ndakaaru mm-hmm. te yoon yi metti na ndax mm-hmm. embouteillage yi ñoom seen dogal mooy bërëb boobu six mille mètres carrés mm-hmm. dañ koy dañ koy def commandement insta euh, base de gendarmerie. maanaam ñi nga xam ne euh, yar ak yoon la moo moo leen yitteel moom la moom la res mm-hmm. mais bi musiba yi amee ba ñaari bakkan ya faatu ci xoolal ni ñu àtte président Macky Sall ci boppam dafa ko xaaj ñaar mm-hmm. suuf si ne wenn nga la genn wàll gi ba léegi gendarme yoo koy jël mm-hmm. dégg nga euh, beneen bi nag ñu defar fa ab lycée. Mm-hmm. en fait euh, non biñ ko seetee biñ ko saytoo ndekete du lycée lañ fa lycée la fa waa Yoff bëggoon na tabax. waaw mais ñoom ni geneen beneen genn wàll gi Auchan lañ ko yéene mm-hmm. maanaam tubaab yi lañ koy sedd mm-hmm. suñ ko sedd seen i sambalma seeni i sandarma. wala ko police wala armée maanaam ñi nga xam ne. Euh, euh, ñoom ñooy dal ci kaw nit ñi suñu teggee yoon mhm. li ci des tubaab yi lañ koy jox ñun liñ doon xeex bi ñuy taal centre culturel français bi musiba yëpp fekk ñu ci mhm. loolu rek la woon nooteel bi tubaab yi daan noot réew mi te Senghor di leen ci jàppale ndaxte ñoom ñoo fi tegoon sengoor mhm. sengoor citoyen français la woon bi mu paree ci Sénégal jiite réew mi ñaar fukki at ba jox lenge yi. Abdou ki nga xam ne moo taamu Abdou Diouf de. Mhm. fal ko. Mhm. jox ko lenge lu mu def dafa ñibbi tugal toog na lu ëpp ñaari fukki at balaa muy dëdd fekk bàyyi na réew mi mais bitim réew la toog bitim réew la gaañu mhm. toppatootuwul Sénégal. lu ñu doon toppatoo euh, làmmiñu tubaab yi làkk gi à l'Académie française mhm. looloo doon liggéeyam bi mu paree ci ñun te ki mu fi teg ki ko fi wuutu moom tamit toog fi ñaari fukki at bëgg ci yokk yeneen juróom ñaari at mhm. nit ñi gàntu ko nit ñi weddi ko ba mu abal ñu moom noonu moom it noonu Euh, euh, euh, francophonie maanaam làkku tubaab yi la la liggéeyal mm-hmm. ay ati ati at fekk nekkatul njiitu Sénégal mm-hmm. te ñoom li leen li li nga xam ne fële Sénégal wute ak yeneen réew Afrique yi ndaxte fii lu tubaab yi gën a yàgg mm-hmm. société réew mu mel ni Guinée juróom fukki juróom benn fukki at rek la leen tubaab yi moom mooy diggante bi ñu jàppee Samori en 1898. ba Sékou di leen di gantu ci référendum mu juróom fukki at te képp Sénégal am nañ fi ay xarnu soreetuñu ñeenti xarnu quatre cent ans cent cinquante ans. oui xam nga. Mm-hmm. loolu nag day am li muy li muy jur. Senghor bi mu paree mu nga Normandie Verson fa la gaañoo. Mm-hmm. Abdou bi mu paree mu nga Enghien-les-Bains banlieue parisienne. Mhm. lay Wade bi nga xam ne de soppi la doon woote moom bi mu paree mu nga Versailles. Mhm. am déet. Mhm. mu ngi noonu ragal nañ ne Macky bi ñu yaakaaroon ne moom melu ni ñoom ndaxte moom euh, euh, euh, buumu jaamu tubaab yi. fekkeewu ko dund ko. dégg nañ ne moom xëj na li ko wutaleeg ñoom c'est que moom narul dem tugal su wàccee. mais dégg nañ ne Amérique Texas Houston Texas la jënd suuf. fa nga yaakaar ni fa lay dem moom. su doo su dee dem na ci jàmm. waaw ba moom boppam. waaw <laughs> dégg nañ ne de foofu lay lay toxu. fa lay dem léegi lu ñeel lu jëm ci wàllu dossier bi ngeen yëkkati. Uh-huh. am ngeen ci yaakaar ak euh, euh, nguur gi ngir nag sot sot li li li li li tax ñun ñu am sañ-sañu. sulliwaat dossier bi. Mhm. mooy euh, bi Macky faloo ba may ñu ñu teg ab plaque ci kasowu Gorée fii ci néeg bi Omar Gagnon. Mhm. Euh, léegi dootul kaso musée la. ñu may ñu ñu def fa plaque ak nataalu Omar mooy photo bii nga wone mhm. euh, xew-xew yi bi ñuy ngénte plaque bi bi ñu koy dévoiler moo ñu force ñu ñaanaat ñu ubbiwaat dossier judiciaire bi. Mhm. ñu daal di bind euh, ministre de la justice jamono yooyu Aminata Mimi Touré la woon. Mhm. soo gisee bataaxal bu rafet bu ñu tontu amoon nañ ci yaakaar. Mhm. waaye ay fane ci topp mu jógee justice nekk primature. ki ko wuutu ci mbirum àtte ak mbirum yoon. Mm-hmm. di maître Sidiki Kaba. Mm-hmm. xanaa wax ju neex moom ndaxte dem naa ba ci moom. Mm-hmm. mu dig ma ne dina sulliwaat dossier bi. waaye ba tey ba sànq léegi fukki at jàll na. te dara yënguwul ci dossier bi. léegi tey lañu dekkil yëf yi. ndax. xew-xew bu bees bi nga xam ne mooy waxu juge Touré. Hmm. ñu fas ko yéene siiwal ndaxte film boobu documentaire parce que am na yeneen film ci Omar yi nga xam ne ay tubaab ñoo ko def. benn bi moom moo ko ci boppam moo def mooy la chinoise. Hmm. mais beneen bi mooy benn belge moo def un film ci Omar euh, euh, euh, mais jubluwul ci li ñu yitteel ñun. Hmm. maanaam. Euh, atte ñu ak tuumaal bi ñu tuumaal amaat na dafa xaru ba dëgg feeñ te su fekkente ne wane nañ ne dañ ko boom euh, kon dañ ko tooñ tooñaale ñu waaye suñu waajur ñoo ci gënoon a mettile waaye dëddu nañu mais Omar bàyyiwu fi takkandeer Omar non jotul a takk jabar muy gaañu amul jabar amul doom mm-hmm. ay rakk rek la fi bàyyi euh, ñun dina ñu ñaan bu boobaa suñu yoon àtteeg ñoom ba jox ñu dëgg bu boobaa nag li ciy topp mooy réparation maanaam tooñ bi ñu tooñ dégg nga yar war na leen dal ci ñi ko def te su dee ay agent public lañu maanaam ay alkaati wala ay garde pénitentiaire mais 73 ak léegi yaakaaroon ni ñi ko seqoon ñëpp daanaka buñ fi nekkatul lan nga xalaat ni xëy na yat boobu. am na fi am na ñu fi des. am na ñu ci des. waaw mhm. mais même su fi kenn nekkatulee sax. Mhm. ci ñi nga xam ne ñoo ko dóor par exemple. ba mhm. mu dee euh, ñii li liñ yilif ñooñu. te ñu jàpp ne ñoo leen ko sant. mais kon ñooñu ñooy gàddu responsabilité bi ñoo war a ndangu dëgg bi ba noppi. faj tooñ bi ñu tooñ mhm. tooñ bi ñu tooñ Omar ak i waajuram mhm. ak i ñeeb ak i rakkam comme bàyyi fu ñeeba te yéen a ngi ciy dundee yaakaar waaw waaw te yemul ci Macky Sall de mhm. ñun du ñu bàyyi du ñu xaddi du ñu toqi te suñu ko sottalul ci suñu diiru dund mais suñuy doom a ngi fi am nañu sax man am na ay sët kon day yàgg-yàgg rek waaye dëggay mujj te duñu bàyyi am na ci turandoo wala am na ñu Omar <laughs> benn du ñaar <laughs> ah yow tamit mhm. liñ ko amee liñ ko ameel dafa rëy de dëgg ndaxte moom bokkan boppam taxu ko woon jóg mhm. gëm bi mu gëm ak rakk yi nga xam ne ñoo toll woon ci musiba boobu mhm. looloo ko tax a bàyyi jàngam bàyyi tugal dem uti entraînement Palestine ba Syrie mhm. waaw ñëw fas yéene fii ay ay ay jéeyo yu jéggi dayoo mhm. nga xam ne sax rus nañ ko wax léegi ñoo ko ci génne ne ko soxlawul loolu c'est inutilement risqué bàyyi loolu mais lan ngeen jàpp ni moom mooy li nga xamante ni moo tax ñu ne arrêté nañ ko ñu arrêté ñu arrêté woon Omar lan la du dara de Senghor moo doon ñëw di juboo si ak gouvernement malien ndaxte bi fédération Mali bi tasee ba ñu dàq le président Modibo Keïta et ses ministres dans un wagon boo xam ne dañ ko caabi alors qu'il était le président de la fédération dàq leen bi boobu donc ça c'est mille c'est 1971 lay Senghor di door a dem Sénégal fekk 1969 daaneel nañu Modibo Keïta. Mhm. jàpp ko ne ràpp tëj ci kaso moom ak ministre yi xam nga. Mhm. léegi nag militaires yi nekk fa soldats yi. Mhm. Moussa Traoré moom li Magasol ak ñoom di se Cekoro Bagayoo ki ki mu lay wax nii jaarul ci turam. mooy Cekoro Bagayoo. directeur de la sûreté. dégg nga. Mhm. ñooñu ñoo doon teeru Senghor mais comme opposant yu bari muy ñoom it Majmout Diop lii Tidiane Beydi du mhm. PAI. Mhm. ñoom it Omar ak Paloma ñëpp Mali lañu la doon la ñu réfugié woon mais balaa Senghor di ñëw nag ñu jàpp ne bépp opposant sénégalais bi nekkoon foofu dañ lay tij. en attendant cest dañ lay mettre en résidence en attendant que Senghor ñëw ba mu dem. ñu soog la bàyyiwaat. léegi nag bi ñuy ñëw suñu kër bi mu wax parce que sama seexu yaay ba ma ko la doon seeyee. waaw kon foofu la Omar dëkkoon. Mhm. Omar Palma. Mhm. te ñoom dañu daan faral di ñëw ci kër gi ndax seen benn karitu soldat moom dafa amoon ku muy labat ci kër gi. Mhm. mu jënoo ko takk sax. waaw dégg nga euh, bi mu ñëwee nag ba jàpp Omar la gis sama bataaxal ci poosam parce que daf ma bindoon pour wax ma li mu doon li mu doon waajal. ma ne ko jaru ko bàyyi loolu teg ko ci suuf. Mhm. dem leen Conakry xaar ñu foofu. yow mi yaa ko bindoon. te man maa ko la bindoon. yow la bindoon. nettali ma lépp li mu jot a def bi mu gën jógee Paris bébé mu yegg ba ma ko. Mhm. jaarale Syrie Érythrée Algérie Mali Guinée d'abord. Mhm. puis Mali dem toog ak ñi mu àndaloon. waaye Paloma rek ci feeñ mais ku mel ni Ali Bathily di ngeen ko gis film bi ci la woon mhm. moom Syrie la mujjee beddeeku bi ñu delloo tugal ci la ne moom daal affaire yi xëy ñu ko lu neex daal moom euh, bokkatul mhm. gars yi continuer damay dégg mhm. bataaxal boobu moo ko rek moo moo moo indi si bi yëpp ndaxte dañ ko càkkaroo daal di jox Jean Collin bi bokkoon ci mission bi ministre de l'intérieur mhm. bu leen fàtte de mag am na ñu bëri di loo xam ne nit ñi dañ ko umpale euh, xam nga Jean Collin naka lañ ko nommé ministre de l'intérieur waaw xam nga moom ministre des finance la woon mhm. parce que tubaab yi euh, euh, alal koppar gi mhm. finance ak sécurité ak ak yoon lañ dul bàyyi du nee naa la en 1973 Moustapha Touré était le premier juge d'instruction à être nommé doyen des juges d'instruction au Sénégal mmh. africain mmh. tous les juges d'instruction étaient français dans la police ñun quand on nous a torturés à la au commissariat central mmh. c'est un policier un certain Castorel venant d'Algérie moo leen doon jàngal comment on utilise la GIGN c'est-à-dire naka lañ lay dugal courant yaram pour wax loola. Hmm. vous avez subi ça. moi j'ai subi ça personnellement. qu'est-ce que vous avez fait. qu'est-ce que vous avez fait. oui on avait brûlé le centre culturel français. le ministère des travaux publics en prévision de la visite de Pompidou. Mm-hmm. et tamit ci bés bi Pompidou di yegg si. ñu ñëw ak suñuy cocktail molotov parce que yéene sànni ci ci oto président donc les cocktails molotov c'est pas nouveau non et puis c'était des cocktails c'est même pas de vrais cocktails molotov c'était euh... des petites bombes incendiaires hmm. mais dañ ko dañ ko réyal danga xam ne Senghor tëgg ñu perpétuité maag Jackie maag Ibrahima Paye donc ça c'était après Omar c'était non non Bob c'est ça qui a mis Omar en mouvement Mmh. bi ñu Senghor tëjee ay perpétuité mag sama mag Ibrahima Paye Jackie donc vous étiez arrêté avant Omar bien avant on a été arrêté en le jour de l'arrivée de Pompidou ok alors que Omar a été arrêté en fin 71 au Mali mm -hmm. on l'a jugé am man dañ ma àtte ak moom en 72 tribunal spécial comme ñun fekk moi j'étais déjà condamné à perpétuité waaye ñu àtte waat ma dooraat ma cinq ans ba sama yaay di di di di kaf après le verdict mu ne ma donc yow soo dee ba pare dinañ téye sa néew juróomi at balaa ñu koy delloo <laughs> noonu la reetaanee bu muy dem yoon euh. nga xam ne ñoom dara du leen yëngal dañoo gëm yaa sama yaay daa gëmoon yàlla nag mm-hmm. yaakaar yonentam mm-hmm. dégg nga euh, mais bi ñu dugalee kaso ñun cent mètres carrés la ñuy yóbbu mais balaa ñu ñuy jàpp bi ñu taalee centre culturel bi te kenn jàppuñu xam nga lan la Senghor def. waaw dafa profito ci affaire boobu daal di liquider syndicat wu enseignants yi CES syndicat des enseignants du Sénégal bu ko mm. sonaloon. Mm. tas ko jàpp toute la direction euh, je crois que moton fu presque fukki nit au moins gën jaa néew juróom-ñett <coughs> dégg nga mm. seede yàlla. Euh, euh, tëj leen kaso dugal leen foor be bi ñu jàppee ñun. deux semaines après ci bés bu Pompidou yegsee parce que bi ñu daalee affaire yi dañu def benn tract appel au peuple sénégalais. Mhm. voilà bi ñu jàppee taxul ñu bàyyi ñooñu de dañ leen téye parce que dafa bëggoon a tas syndicat d'opposition yi. ñi doon xëccoo ak CNTS participation responsable bi nga xam ne 68 la ko taxawal. Mhm. yaa ngi dégg léegi. Euh, bi ñu euh, euh, yóbboo cent mètres carrés dugal ñu ci bibliothèque bi taxaw samp fa benn quartier politique pour les détenus politiques mooy la ñun ñun nag. ñu def utilisez l'expression détenu politique. moo ah koy wax ah oui oui on était des détenus politiques. Mm-hmm. puisque on a fait un acte politique et on l'a expliqué dans un tract léegi li ñu def berñu. ci biir cent mètres carrés dans la dans la bibliothèque quartier politique. Mm-hmm. mais dañ daan dem di dëggante ak droit commun yi. Mm-hmm. boobu ci jamono yooyu le cassettes yi doon commencé génn. Mm-hmm. les bandes. les bandes cassettes à bande. ak euh, les petites. Euh, magnétophones la PAC. ñu commencé di def ay propagande ci kaso yi ci kaso bi di wax gaa yi mais ñu ne sàcc kan mooy sàcc jigéen dëggantaan. koo xam ne day sàcc mburu mbaa meew pour jox njabootam mu lekk ak kii sàcc alalu réew mi rawale ko rënk ci ko bitim réew ba noppi taxaw di ñu seetaan di ñu yëliif ñaar ñetti fan la ñu commencé campagne yooyu ci biir droit commun rek. Mhm, mhm. gars yi xëy riche la ñëw lëlëg seen ne bon pare leen seen bagage. Ah da di toxu. Ah ñu ne fuñ jëm ñu ne forbee ngeen jëm. Mhm. en waa CES waa ñoom ñooy ñëw fii seen place. Mm-hmm. ñu ne demuñu. ngeen riposté. non dañ ne demuñu. mun mm-hmm. nañu soo leen demulee dinañ leen fi jëlee par force ñu ne ba yeboo. Mm-hmm. bii loolu c'était entre huit heures et demie ba onze heures ñuy naxante ak yooyu muy jéem ñu lank rek jàpp fi ñu jàpp. à partir de onze heures GMI yi commencé dugg ci biir kaso bi yéeg sur les toits autour de notre quartier politique. ñun tamit ñu commencé di démonter suñuy lal pour fat bunt bi tere leen ñu dugg si mais bi ñu sonné l'assaut en moins de dix minutes <laughs> ñu rajaxe affaire yi ñëpp dugg ci kaar bi man par exemple afro laa yoroon ci jamono yooyee mais dañoo ubbi dañ ma xaañ ba xar fii ci lañ ma pour mën maa ñawal góom gi ñu wat ko ñu woot ma sama afro mosul dellu si boobu li léegi laa laa sa gëj am afro parce que ñun ay affaire afro moo doon mode bi daal. Mhm. Ah, africain américain ci jamono yooyu ci jamono yooyu. mais gis nga da bi ñu indee ñoom it Ibader ak Ablaye Thiaw ak ñoom Baba Gisee dugal leen ñun yóbbu ñu for bee ñun ñu déclenché grève de la faim for bee. Mhm. bi ñu parce que jusqu'à midi ubbi wu ñu détenu pour droit commun yi pour seen récréation. Mhm. parce que fallait ñu de génne ñu ba pare pour mën a ubbi bi ñu leen ubbee. Mhm. loolu sama benn xarit droit commun celui qu'on appelait le gentleman cambrioleur. Mhm. dem si yàlla Albouri Ndiaye un garçon comme ça. Mhm. ne benn détenu moo ne waa mais chef de cour. chef de cour gaañ ngeen boo yi parce que ñoom jotoon nañu gis tuuti à part les grilles les les barreaux de leur cellule. des grands cours. mu ne waaye xale yi dañoo xamadi waaye di dëgër boppa ak mhm. mu ne ko waaw mais chef de cour régi grand gardien chef sa doom su ci bokkoon nii nga leen di def mu ne yooyu yaa gën a xamadi koy waxal rek waa ji dagal ko ne à la porte rek mutinerie bi tàkk. Hmm. c'était la première mutinerie de la prison civile de Dakar. quatre évasions. 3 hmm? heures et demie avant que j'aie mis jëlaat contrôle de la prison. le soir même Senghor a relevé Cissé Dia du ministère de l'Intérieur pour nommer Jean Collin qui jusque-là était ministre de finance parce que bi Pétavin gaañoo Collin moo ko remplacé aux finances centre Pétavin bi ñu tuddee c'était le premier ministre soi-disant sénégalais mais c'était un français administrateur des colonies comme Collin mhm. qui était ministre des Finances kon loolu moo def Collin mu doon euh, ministre de l'Intérieur le soir de la mutinerie il a été nommé par décret mm -hmm. c'était le seul décret modifiant la composition il est resté jusqu'au départ de Senghor en 81 mm -hmm. est-ce que li ñuy wax naan jot na fekk Omar euh, loolu ay ay ay léeb la loolu leer loolu leer amul loolu amul amul jotu ko fekk foofu benn yoon la Colin ma sa ñëw suñu kaso mhm. boobu ñu nga foor bee mhm. mooy euh, parce que biñ ñu condamné ba pare ñi ci ëpp si suñu groupe des incendiaires dañ leen jox sursis mhm. mais ñun am na ñaari perpétuité benn vingt ans ñaari dix ans. Mhm. ak sama rak Pam Ndiaye Mohamed. waaw juróomi at parce que n'avait que dix sept ans dix huit ans. Mhm. dégg nga ñun ñu delluwaat ñu foor be mhm. ñu ñu ñu bàyyi ñu forbe. mais bi Colin jógee Bamako ak bataaxal bi ko Cekoro Bakar yooyu doxoon. waaw bi mu jógee aéroport dafa ñëw for bi directement à deux heures et demie du matin. gars yi dugg si cellule bi ci cave bi. fouiller néeg par néeg non seulement suñu côté ñun les incendiaires loolu lañ doon wooyee mais fouiller aussi le le le quartier des étudiants incarcé incorporé de force dans l'armée parce que boobu dafa yor lettre bi nga xamante ni Omar moom la bindoon moom la la bindoon yow. non voilà dafa jot lettre bataaxal bi nga xam ne man maa ko bindoon. Omar ah yow bi nga bindoon. moom la ñu fekk ci poste Omar. d'accord booba yow yaa ngi naan Omar na teg ci suuf. affaire mm, waaw kidnapping ambassadeur de France nañ ko waxte dee. ah d'accord <laughs> d'accord à ce temps-là donc Omar loolu la amoon. oui ñu ne ko jaru ko. Mm-hmm. kaso bi man génn nañ fi du benn du ñaar du ñëwaat. Mhm. mën nañoo génn génn dëkk bi balaa gaa xam ne nekkatuñ fa. d' accord alors donc on va retrouver notre ami. encore Amidou encore une fois Amidou. Amidou <laughs> il est en voyage au Mali. il retrouve donc il est épuisé il est épuisé mhm. se passe. c'est ton tour. on revient sur. Euh, Attends, cette... <laughs> <laughs> Alors, donc, vous êtes en train de voyager, de souvenir des images, donc, de vos rencontres avec euh, Omar Toujours, parce, parce qu'on était en train de euh, parler de ses activités ah, ah. et qui étaient liées aussi par, euh, activités de son jeune frère, donc le docteur euh, Diallo Diop. Ouais. Maintenant, dites-nous euh, le message. et Mohamed Diop. Voilà, et Mohamed Et leurs cadet, hein? Ah oui, Mm. alors donc euh, si nous regarde on salue la famille aussi au passage mm. alors dites-nous le message que portait Oumar par rapport à cette nouvelle génération là est-ce que ces valeurs là cet héritage vous le voyez avec ces jeunes leaders qui sont là aujourd'hui en Afrique bon quelque part c'était effectivement un voyage euh, qui n'était pas enfermé dans des considérations euh, classiques de je suis de tel endroit, de telle région, oui. mais comme un philosophe, c'est un, un euh, des réflexions ouvertes sur le monde. Okay. Vraiment, ça embrassait le monde. Mm -hmm. Et aussi bien l'Afrique, l'Amérique latine à l'époque, où mm -hmm. ça mhm. bougeait énormément, l'Asie. Vous savez, la guerre du Vietnam oui. était très importante mm -hmm. et a, fabriqué mhm. la, la, la, défaite de l'Amérique. Donc c'était vraiment... Et en même temps, on découvrait l'Afrique. Mhm. On avait l'ambition d'être porteur de changement en Afrique. Mm -hmm. Donc, euh, et ça ne se passe que par des réflexions, par des idées euh, qui bousculent d'autres idées qui sont là. Oui. On venait d'avoir d'être indépendant, entre guillemets, il y a à peine dix ans, mm-hmm. mais on ne comprenait pas beaucoup à ce qui arrivait. Euh, juste après, mm-hmm. parce que les indépendances, ça a été toujours euh, un moyen de nous avoir encore plus. Mm-hmm. Donc vraiment, ces idées à cette époque-là, Euh, pour quelqu'un qui était à la richesse de sa vie, c'était des idées qui euh, ne vous laissaient pas indifférent. D'accord. Alors maintenant, par rapport à cette époque euh, et maintenant, nous, nous considérons que euh, chaque génération mm -hmm. a sa part mm -hmm. de, de, contribution mm -hmm. au changement euh, dans le monde. Quoi. Mhm. Et, et, notre part était qu'à la fois, nous étions dans l'enthousiasme des indépendances mm-hmm. qu'on venait de recevoir. Mm-hmm. J'ai dit de recevoir, comme si c'était quelque chose qu'on reçoit, mm-hmm. alors qu'on l'arrache. Donc, euh, on doit l'arracher parce qu'on on ne libère pas un homme, se libère. et donc vraiment, euh, et on pense que vraiment, on était dans la découverte de nous-mêmes, dans la découverte de nous-mêmes en tant que personne, qu'est-ce qu'on va faire Quel va être notre devenir Quelle va être notre contribution pour que l'Afrique, nos pays, soient à la hauteur du monde Et justement, comment est-ce que vous, avez, vous, vous imaginez donc, cette Afrique-là si on parle aujourd'hui de l'unité africaine, l'Union africaine, on parle de la CDAO. Bon, à l'époque, on, on parlait de, Parce que l'Afrique, à cette époque, dans les années il y avait énormément de pays qui n'étaient pas du tout libérés. il faut savoir que nous, on a bénéficié de la libération. Pourquoi Parce qu'en Afrique, il ne faut pas aussi l'oublier, il y avait la, guerre d'Algérie mhm. dans les années mhm. et la guerre du Vietnam qui ont vraiment euh, été amenés à remettre en cause la domination française mmh. dans son empire. Mmh. Donc on a deux événements très caractéristiques mmh. qui étaient là. Donc on était dans une période de lutte. Et ces, ces luttes-là, elles ont pris des formes politiques, des formes syndicales, des formes intellectuelles, des formes de rencontres euh, de gens. Donc vraiment dans une recomposition dans laquelle on se retrouve jusqu'à présent. Mhm. Alors simplement, on, était, on est passé d'un modèle de situation où il y avait une domination directe avec une présence, à, une, à un modèle de domination indirecte, mm -hmm. hein, mais avec des règles encore plus difficiles. Parce que quand vous n'avez pas quelque chose et qu'on vous donne l'illusion d'être quelque chose, alors qu'on vous a fermé encore plus, ah, ça devient, euh, ça fait appel à comprendre dans, dans quel monde on se trouve. Mm -hmm. Alors, le courant, que le, les idées qu'Omar portait, effectivement, par son parcours intellectuel, parce que mhm. c'était ça qu'on cherchait, euh, par rapport à la jeunesse, qu'est-ce qui est votre euh, question aujourd'hui, c'est une idée euh, qui ne part pas. Ça, ça, fait partie des besoins de cette jeunesse. Mhm. Cette jeunesse dans la, qui aujourd'hui euh, vraiment qui sont presque nos enfants, nos petits-enfants, sont confrontés à un monde qui s'est encore plus complexifié. nous, oh, c'était compliqué, mais maintenant, c'est encore plus compliqué. Mmh. C'est encore plus compliqué. Donc, euh, l'aspect de désespoir ou d'espoir que le jeune peut avoir bah, euh, aujourd'hui fait que euh, cet héritage euh, que nous avons pu porter à notre époque et qu'on a bénéficié aussi d'autres qui ont fait des luttes politiques. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale oui. a, a, a, été l'occasion d'une grande ouverture politique sur l'Afrique. Mhm. Il faut pas oublier que c'est nous qui avons libéré l'Europe, mhm. c'est nous qui avons libéré la France. <laughs> et maintenant, on s'est rendu que mais, on va libérer les autres et pourquoi on va pas se libérer soi-même Nous sommes toujours en otage. <laughs> c'est après la Deuxième Guerre, c'est ça l'arrivée de la politique en oui. Afrique. Mhm. C'est ça après les deux guerres. Là. Euh, d'idées et même s'il y a eu des quelque part euh, le colonisateur qui a été libéré n'a jamais jamais reconnu notre part. Okay. Ils ne reconnaîtront jamais. D'accord. Tout ce qu'on leur a apporté hein, pour être eux-mêmes, ils ne le reconnaîtront jamais. Mmh. Ça c'est clair parce qu'ils ne considèrent pas que nous, nous existons. Mhm. Euh, il mmh. euh, y a une ingratitude fondamentale. Mmh. Parce que la politique aussi, c'est ça. Mhm. Alors, donc maintenant, cette génération qu'on a, elle est confrontée au monde entier. Et malheureusement, euh, les espaces dans lesquels euh, elle peut se former sont, ont été encore euh, atomisés, euh, réduits, opposés. On nous oppose, Sénégal, Mali, ceci, qui ne veut rien dire pour eux. Mm -hmm. hein, on a toujours la même masse là. Et, mais nous, on s'accroche à des choses qui, en fait, pour celui qui a le contrôle général, c'est vraiment Ils nous amusent avec ça. Et pendant ce temps, alors, donc notre jeunesse est très, euh, aujourd'hui, mm -hmm. très confrontée à plus de problèmes que nous. Mm -hmm. Et malheureusement, les, les, dynamiques politiques ne sont pas, n'ont pas accompagné cette crise. Mm -hmm. Sinon, on ne serait pas là. les dynamiques qui ont accompagné la crise après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait la classe politique, qui a fait les syndicats et qui nous a amenés à l'indépendance, bon, euh, ça s'est émoussé, ça s'est arrêté un mhm. Mais là, cette jeunesse, elle n'a pas, de, on peut dire, elle n'a pas de repères. Mhm. Elle manque de repères. Mhm. c'est extrêmement grave parce que nous sommes construits, nous sommes construits sur vraiment euh, des références. D'accord. Comme chez nous, Nous croyons à nos aînés, mmh. nous croyons à nos familles, nous croyons à un certain nombre de choses euh, qui font qu'on peut se former. D'accord. Alors ce matin, vous étiez au cimetière Tout à fait. Alors vous avez... Euh, euh, vous étiez avec la délégation, avec la famille. Tout vous à avez fait. communiqué, vous avez communié avec euh, la tombe de Omar. Totalement. Vous, euh, vous imaginez le message qu'il vous, qu vous a transmis tout à S'il fait était ça... vivant aujourd'hui 50 euh, ans à fait en pour nous en tout cas pour moi personnellement. Oui. Omar physiquement n'est pas là. que parce que ce qui importe ce les idées mm-hmm. les idées a on se, on se construit avec ça. Mhm. Donc pour moi, moi j'étais là il y a 40 ans après, on a fait la même chose. Oui. ans, on espère ans après être là. <laughs> Euh, parce que quelque part, il n'est pas parti. Mhm. Et, nous, on a eu l'occasion, moi personnellement, c'était la première fois que je découvrais la tombe. C'est-à-dire la cérémonie qu'on a faite cette année a pris une autre dimension qui n'était pas la cérémonie des 40 ans. Mmh. Ça s'améliore mmh. parce qu'il y a de nouvelles informations qui sont arrivées. Cet aspect médiatique qu'on est en train de donner n'existait pas à cette époque-là. Oui. Et puis euh, le, le, film qu'on a vu. Donc, alors, au cimetière qui était votre question, oui. moi, Dieu merci, je suis un peu ouvert à ces questions de religion. Oui. Et j'ai fait des bénédictions trois fois sur la tombe que je découvrais. Mmh. Hein? Et on a prié trois fois on a fait des doigts mm -hmm. et chacun a gardé cela comme il y a eu une première génération eh, qui a reçu cette nomination. Il y a eu une deuxième, une deuxième, vague de gens qui sont venus. Il y a eu une troisième vague mmh. qui était extrêmement intéressante de jeunes de l'université de Cheikh Anta Diop mmh. qui sont venus avec leurs pancartes en, euh, et qui ont vraiment marché jusque vers la tombe, qui ont pris parole pour vraiment dire hein, ce que votre question vous pose, ce que Omar représente pour eux. Effectivement. En tant que vision panafricaine, mhm. c'est-à-dire en tant que vision continentale, mhm. pas une vision réduite au mhm. fait qu'ils sont, au de tel ou tel pays. Et ça, je crois que c'est très fort, Et ils ont pris la parole des garçons, des filles, euh, des étudiants avec beaucoup de sens de, choses. Donc quelque part, la mémoire, on était au cimetière, sur le lieu, c'est devenu une tribune et en même temps un lieu de prière, puisqu'on a fait des fatias trois fois. Moi-même, j'ai géré les, les, prières parce que au Mali, j'ai une fonction d'imam, euh, je gère une mosquée. Okay. Donc, quelque part, euh, je crois que Omar nous a. Euh, il était avec nous. D'accord. Ça, c'est clair. Et, et, ce qui est exceptionnel, il y a des gens que j'ai perdu de vue en France, mm -hmm. paf, je les retrouve là-bas, mm -hmm. euh, mhm. ce jour-là, euh, hier ce matin. Mm -hmm. Donc, le cimetière a été une partie extrêmement riche, si tu veux, de de ce, de ce cinquantenaire. Et on y est resté au moins une heure de temps, sinon plus. Mm -hmm. Au moins une heure de temps. Mm -hmm. C'était pas une visite, on vient, on part. Mm -hmm. On est resté au moins une heure de temps. Ça a été vraiment un lieu de, de séjour pendant cette année. Et ça, c'est fondamental. Mm -hmm. euh, pour euh, euh, le, le, le mort. les morts ne sont jamais morts. Ah, oui. C'est les vivants qui sont ah, peut-être euh, ah, <laughs> ah des, des, morts qui attendent leur tour. Ah oui. Ah voilà. oui. En tout cas, on vous remercie de votre euh, visite, de votre séjour au Sénégal. Ouais. Vous êtes dans votre pays, comme vous le dites. Ouais. Donc, les questions de territoire euh, ne doivent pas limiter les Africains. Tout à fait. Donc nous devrons être des Africains du Sénégal, des Africains du Mali, des Tout Africains euh, entre autres, Tout à fait. pour dire que l'Afrique est unie et doit à, être donc unie pour toujours. Tout à fait. Votre témoignage avec euh, sur Omar, votre ami, votre euh, compagnon, nous a permis de découvrir aussi une autre facette Tout et de fait. sa vision qui reste fidèle et qui reste aussi une, euh, un héritage pour fait. Euh, cette nouvelle génération. En tout, cas, fait. donc, on vous euh, dit rentrez bien. Mm-hmm. Monsieur Magassa. C'est ça. Ouais. Alors, donc, nous, nous ci docteur Diop. moom it euh, pour tëj émission bi di wane nii euh, lii duñ ci yam rek ay jéego lay doon ndaxte at mu jot 11 mai ñu tijji benn page page boo xamante ni dinañ ko consacrer à la vie euh, de Omar Blondin Diop te liñ ci mën a wax rek moom mooy que ni yaakaar jeexul te sànq yaa ngi koy wax. Mm-hmm. ndax Omar dans les esprits son âme plane toujours. tey ci fi nga xamante ni fi la ñu nekk te ku xam histoire am xamit lii nga xamante ni jot nga ko wax di nga xam ne dina am jeunes yu jeunesse yu bëri génération yu bëri yoo xamante ni dinañ am lu jàngee ci moom mm-hmm. kon ñu ngi leen koy muñloo encore une fois di leen ko defalee mm-hmm. donc ñun ñii am na lu ñu jàng ci moom am na lu ñu gëstu ci moom ci lu bare bare bari mm-hmm. donc ñu ngi ñaanit njaboot gi suñu borom oyofal bu baax ba tey fàttali gi te tamit ñaan yi nga xamante ni moom ngeen def kaamin bi ak projection bi programme d'activité di d'ici trois jours yi nga xam ne fas yéene nañ leen ci gunge ak 2STV loolee lépp oyof ci yéen kàddu gi ngay yëkkatee jotaay bi lan lay doon. jëf jërëjëf jërëjëfati yal na yéene bi yegg euh, mais am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax mhm. ndaxte Omar soo ñu sottee sottalee mbirum euh, boomam. Mhm. mbirum euh, ñàkk bakkanam mhm. war nañoo faydaal war na ñoo gëstu war nañoo sargal. dundam ndaxte li mu jot a def ak néew ab tegtal la te am nañ ci am firnde bu wóor mooy bind këyit yi mu jot a bind teg te ñu dajale leen segg leen fas leen yéene euh, génne ci ab téere bu ndaw bu ñuy woyee livret mhm. euh, loolu mooy li ñuy waajal suba mhm. su ci yàlla àndee te am nañu yaakaar bu baax a baax na ñu bare ñuy dégg Omar Blondin euh, euh, toj toj yi ñu fi jot a def mm-hmm. te xam nga ne yenn yi daa jéggi woon ndeyoo mm-hmm. waaye xam nga euh, ab gone du mat mm-hmm. mais ñu gis ne du woon ay jéeye rek amoon na tamit ay xalaat ak yéene yi jublu ci Afrique te ci àdduna si tamit mm-hmm. ndaxte niñ ko waxee tey si suba ci film bi Omar yemul woon ci Sénégal ak Mali de mm-hmm. euh, euh, euh, da doon yeete ci li xewoon tugal mm-hmm. ci li xewoon Amérique ak nit ñun suñu mbokk nit ñu ñuul yi fa nekk ñun suñu kër amoon nañu abonnement ci journalu Black Panther Party. Mm-hmm. guerre u Vietnam dañ ci dënk dañ ko doon topp. 68 par exemple l'offensive du Tet bi vietnamien yi bëmëx américain ba yàgg buntu Saigon. Mm-hmm. Euh, euh, dañ ko doon féete dañ ci doon bàkku. Mm-hmm. ndaxte pour ñun euh, da doon firndeel ne dëgg mën doole. dëgg te li dal Afrique tamit ay jamono rek la waaye Afrique dina mës a suqaliku. Mhm. waaye su buggee taxawaat te kenn dootul am sañ-sañu ñëw bëgg ko jaay doole ci suufam. Mhm. ndaxte Afrique mosul dem mukk ci réewu jàmbur ne daf leen di jaay dooleem wala di leen di euh, teg ay dogalam. Mhm. Euh, faw Afrique benn su Afrique nekkee benn. lépp li mu soxla ngir tabax réew moo xam ne dina neex a dina dina dina naat dégg nga te jàmm sax fi mu ngi fii d'accord mbooloo maa ngi fii mm-hmm. suuf saa ngi fii mm-hmm. xam-xam baa ngi fi xam-xam alal baa ngi fi mm-hmm. li ci des rek mooy moom suñu bopp dëgg la suñu moomee suñu bopp moom ñu bari dinañu gàddaayu ñun xam nga gaa yaa ngi mbëkk mi la gaa yi dañuy mhm. <laughs> jéem a dem bitim réew daw Afrique mu doon l'inverse soo ottuwul ñoom waa bitim réew ñooy jéem a daw si mhm. di wallu si fii di ut si e, jàmm ak bànneex d'accord wasalaam mën nañu yaakaar nit ci loolu lépp mën na dem ba université porter son nom yeneen ak yeneen am ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni war nañ ko mën a fàttalikoo ak yeneen yoo xamante nii rek euh, dina ñu max ni ñii ñuy ñu ñu ñu ñu euh, ñi fay jàngee ji wala ñu fay gëstu ji xam-xam dinañ xam ne ñii am na lu ñu defal seen réew am na lu ñu bàyyil seen waar yéene bi rafet na amin waaye waruñoo yem rek ci di tuddee euh, ay ay kuréel ay nit ak yooyu nañu mm-hmm. tibb Euh, lii ci ëpp solo mooy reenu liggéeyu nit ñi. dëgg su xoolal Cheikh Anta Diop. Mhm. loolu am naa ci ab firnde. Mhm. Cheikh Anta Diop université bi ñu ko tuddee. Mhm. xam nga léegi euh, mat na euh, ñeent fukki at. Hmm? ëpp na ko waaye ba léegi ci bépp faculté yi fi nekk fii ci université de Dakar. amu ci benn faculté boo xam ne dañ fay jàngale xam-xamu Cheikh benn téerewu Cheikh Anta nekkul ci programme yi même en faculté de lettres waaw nga xam ne xam nga rek. am na daal lees lu ñu war a mën a joyantiwaat li ci kanam <laughs> réew mi ngi noonu kon <laughs> noonu lañ lañ ko waxee. Mhm. liñ ci jublu woon mbokk yi ak fàttali la goo xamante ni mënul woon ñàkk te ku waxat Sénégal it wax ko ci taarix wàllug jaloore di nga wax it foo mën a tibb rek am na ñenn ñoo xamante ni mën nañ leen a daal di waxtaane ci réew mi tey nag mu tombe woon ak 11 euh, mai 11 mai gi ñu jagleeloon ko ci bu ñu gëstoo. ay euh, at ba mu mat juróom fukk ni ki tey mu doon nag faatu goo xamante ni mu doon euh, Omar Blondin Diop tey ji ñu amoon mbégte loolu seq waxtaan ak koo xamante ni dundoon na ak moom doon koo xamante ni it euh, àndandoom la woon waayam la woon xaritam la woon ñu koy wax euh, donc Hamidou Magassa naka noonu tamit docteur euh, Diallo Diop di son jeune frère kon mbokk yi lii moom mooy li nga xamante ni moom lañ leen indiloon ngir fa yéene ci waxtaan ak yéen di remercier aussi ci ginnaaw coordination bi Seydou Ndiaye. Sayit ñu ngi lay euh, sant di la gërëm ci coordination bi ak activité yi yëpp donc euh, di remercier la technique ci ginnaaw mbokk yi ak programme 2S ñu bàyyi leen mu wéy ak yéen jërë ngeen jëf